waaw waaw salaamaaleykum waa Sénégal donc maa ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di ziyaare ñëpp rawatina waa Tëngéej tey nag dafa am benn déclaration bu ndaw rek boo xam ne dama koy def par rapport ak élection yi nga xam ne moo am ñu profité nag ci occasion bi di jàllee suma mag euh, Mbaye Seck di ko jaale waa Tëngéej yëpp mu nekkoon candidat au nord tey nag sama programme li ci nekkoon mooy ñun waa booloo defar Tëngéej dañu waroon def benn caravane mais ak dese mbay sekk bi ñu ne dañ ko fomm mu am sama benn rak bu ñuy wax baaba wooma ci benn kër gu nekk dàngu noor ci tënge ma demoon seeti ko bi ma demee mu def ay chaise ci biir këram mu am une personne mal intentionnée boo xam ni dafa jël image yi filmer ni kaay leen seetaan les images Mame Goor clôture campagne am mu bëgg leen xamal ni nag man jomb naa nit ku ne mel ni mbay Seck doon suma grand frère décédé may def benn acte politique tey fi ma demoon visite de proximité laa fa doon def mais nag comme gars yi instant bi tiit nañ ragal seen defet xam ne balaa di ma gañe moo tax ñuy profité ci occasion yi yu mel nii pour jéem a yàq image nit mais dëgg-dëgg ne yàlla maa ngi remercier waa Rufisque yëpp ci taxawaay bi et puis incha allah dinaa ci boole. benn meeting bi nga xam ni moom rek laa def di campagne bi commencé ba léegi ngeen gis image yi xam ni cette personne là nit la koo xam ni kuy jéem a yàq la di si waat bu baax waa booloo defar tege merci beaucoup.